إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala di ko dimbalikoo di ko ñaan mu jéggal na suñuy bàkkaar ñuy tuub di delluwaat ci moom subhanahu wa taala di ko ñaan mu gindi ñu teg ci yoonu jub moom mi aji jubalaate te képp ku mu jubal mucc nga waaye képp ku mu seetaan ci maandu teem ma nga sànq amul kenn ku la mën a jubalaat yàlla ñu yàlla jubal di seede ni amul kenn ku nu war a jaamu moom subhanahu wa taala ku dul moom te waruñu koo bokkaale ak kenn di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tànneefam la yàlla nañ ci yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam di rafetal aw bis penc di taxaw ñuy dénk suñu bopp mbokk di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala comme nim ñu ko dénkee ci alquran ci ay béréb yu bari mu ni ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal rik bu leen dellu si man mukk lu dul da ngeen ma jébbal seen bopp mbokk yi suñu xutbay tey ñu ngi koy fas yéene amal ci lii di al ijaza al sayfiya muy les grandes vacances ginnaaw bi nga xamante ni suñu ndongo yi def nañ année scolaire bu toll ci neuf mois doon ci jàng njàng moo xamante ni bu ci bënn bu ne mën na ko jëriñ ci àdduna waaye mën na ko jëriñ ci àllaaxira mu war a toog nag ñetti weer yoo xamante ni vacances lañ koy tuddee wa ma adraka mal vacances ana lan mooy vacances mbokk yi suñu borom subhanahu wa taala mu ngi wax ci alquranul karim ci suratu sharh mu ne fa ida faraxta fansab wa ila rabbika fargab ginnaaw bi nga xamante ni mbirum àdduna gi kër-kër gi nekk nga ci ba mu sot nee na na nga delluwaat nag ca la nga xamante ne mooy jaamu yàlla ndax yàlla mu ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne dul ñu jaamu ma mbokk yi trois mois de vacances daanaka téeméeri fan la ci dund doomu aadama ban responsabilité la ci ndongo bi am bu mu war a rendre compte ci kanamu boroomam bu dee ku mukallaf la wala wayjur bi nga xamante ni xale bi yàlla moo ko jox te ëllëg dina ko laaj ay masuliyam moom lan moo ci ay taxawaayam ñaari mbir yi la ñu bari di dundee lii di grande vacances ñii noppalu lañ koy dundee ba mu jeex tàkk ndax nee nañ ci année scolaire lañ jóge boo xamante ni njàng ma dafa metti woon ñi ci des nag tamuus mooy ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al mawt wal aajizu man atbaa nafsahu hawa wa tamanna ala allahi al amani mu ni ki muus dëgg mooy ki nga xamante ni dafay fexe di liggéeyal jëmmam ji lu koy jëriñ fa mu jëm yowm alqiyaamati waaye ki nga xamante ne mooy ki sàggan nag mooy ki topp rek bakkanam jàpp ni moom àdduna fii ak noflaay la mbokk yi suñu benn mag daana wax ni àdduna na de ku ci ki ci nar a sonn dëgg mooy ki ci nar a ut noflaay kooku mooy ki sonn ci àdduna ba tax na dafa war ci yow mu mukallaf mi jël vacance wala sa wayjur ñu tegal la barnaamij calendrier boo xam te ni noonu nga war a dundee sa vacance bi ci njëkk mooy mbokk yi lii di téere yàlla bi subhanahu wa taala ab jullit dafa war a bokk ci mashru am ci projet am mooy muy mokkal alquran maa tayassara minhu nag lu mu ci mën a mokkal mu mokkal ko ci ñii yàlla daf leen tànn ngir ñu war a mën a mokkal alquran def ko seen dënn waaye ñii yàlla tànn leen ngir ñu mën ko mokkal waaye mën nañ ci mokkal la ñu mën a mokkal ala kulli xaal jullit bi dafa war a bokk ci ay projet am muy muy mokkal alquran karim lam ca man ginnaaw ba nga ko mokkalee nga fexe di ko muraaja di ko toppaat ngay toppaat lii di alquranul karim bi ginnaaw bi nga koy topp nag nga fexe di def atadabbur li yàlla wax afala tadabbaruna alquran ngeen di settantal alquran bi xam la ci yàlla di wax ndax doomu aadama yi bokk na ci li muy ñaan saa su nekk borom moom mooy alhidaaya mooy jub te yàlla mu ne ci alquranul karim alif lam mim dalika alkitaabi laa rayba fiihi hudan lil muttaqin kon yow mi nga xamante ne yaa ngi bëgg a tegu ci yoonu njub wala nga bëgg a teg sa njaboot ki ci yoonu njub bul wëri de gauche à droite jëlal sa njaboot nga fekk leen ñu jàng alquran gi te dégg alquran bi foofu la njub gi nekk ba tey mbokk yi ginnaaw bi nga xamante ni jàng alquran gi fexe cee mokkal lan ci mën a mokkal ci vacances yi di ko muraajan di ko sa dabbur nga fexe jàng xam-xam yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir alquranul karim muy xadisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu firil alquranul karim ak lépp loo xamante ni doomu aadama bi li muy jaamoo yàlla ci wàllum fiq wala li mu war a gëmee yàlla ci wàllum pas-pas lépp mu ngi ci alquranul karim nga fexe di nga dégg ko wala nga dégguloo ko sa njaboot borom bi subhanahu wa taala bi mu jàkkaar ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci awwalu suura bi wàcc alquranul karim daf ni ko iqra mooy jàngal iqra googu noonu képp ku koy julli rek xamal ne yàlla mu ngi koy wax ak yow mooy da nga war a jàng ba ko yàlla di tànnaloo ab ñaan moom alayhi salaatu wasalaam daf ni ko waqul rabbi zidni ilma ilma yow yàlla ne na ko yow yàlla dolli ma xam-xam comme grande vacances yi nekkul ci jullit bi lu mu war a tëdd ak a nelaw ak a seetaantele waaye lu mu war a dolli koo xam-xam la ci gën a xam li nga xam te noonu la war a jekkoo lii du jaamu yàlla yi aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di selmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam ni ñetti weeru vacances loolu ci capital lu dund doomu aadama la bokk doomu aadama capital dundam capitalam mooy la mu war a dund ci kaw suuf loolu nag jullit da ko war a consommer ci li nga xamante ni lu koy jëriñ la waaye mu bañ koo consommer ci li nga xamante ni lu koy sànq la ginnaaw programme boobu ñu wax léegi ci lu ñu war a tënk suñu njaboot tënk ci suñu bopp muy jàng alquran di ko settantal ak bépp xam-xam bu lamb ci biir alquranul karim waaye tamit ñu fexe di tënk njaboot gi ci li ñu mag ñi daan tënk ndax mbokk yi grande vacances su musaan a jot bokk na ci xale yi ñoo xamante ne yàlla deful si ñoom ni dañu war a am xam-xam waaye dañuy nekk ñoo xam ne ñu léej lañ ñuy mën dara ba tax na borom kër yi bii jege njabootam xam ni kii sama doom ji xelam naccul ci école bi ci alxuraan gi sax naccu ci xaaral ma yóbbu ko ci nijaayam diw moom de menuisier la wala nijaayam diw moom de tailleur la wala mu yóbbu ko ci àll ba mu ne bay ji yooyu mën nga ci génnee xale yoo xamante ni foofu la yàlla def sirri ci ñoom ci lu ñu war a jaar muy seen buntu takk ci àdduna ak àllaaxira naka noonu it bu dee soxna yi bari na léegi xale yoo xamante ne yu jigéen mën nañu jàng ba am seen baccalauréat mënuñoo togg te boo nee leen borom kër a ngi nii ñun la doom a ngi nii kooku moom nag nga mën a ne tegg dem yóbbu ko si biir néegu sëyam kon vacance dafa nekk moment boo xamante ni waajur yi dañ ci war a profité tàggat seen njaboot ci ñu mën a jariñ jariñ seen bopp jariñu seen i mbokk mbokk yi est-ce que grande vacance dafa ñëw ngir ñu war ko passé ci ay dem ci plage ngir ni dafa tàng mbokk yi yàlla mi def sedd moo def tàngoor sedd da koo def ngir la ca war a génn ci ay meññent ngir ñun ñu koy jariñoo ñu doomu aadama yi lépp suñu njëriñ la noonu la defee tàngoor it mu des ci yoo xamante ni la cay génn ñun moo ñuy jariñ wante tàngoor bi nga xamante ne yow da nga naan lii de dafa tàng tey ba yow mi yàlla wax yow soxna ni la moo yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaa ayyuhan nabi qul li azwaajik waxal sa soxna yi ak bépp jul julit bu jigéen ni nañuy muu seeni cër yow nga ni dafa tàng tàngoor waroon na laa jàngal ne boo moyee lii di waxu yàlla ak waxu yonente bi sallallahu alayhi wasallam tàngoor bu ko gën a tàng moom ngay fekk ji muy bis yowmal qiyaamati ca taxawaay ba njëkk wala sa biir bàmmeel muy fitnatul qabr wala wal yàlla na ci yàlla musal muy di fii di safara mbokk yi kon tàngoor nekkul loo xamante ni nit ki da ko war a jàmbat ba tax nga tegg li nga xamante mooy waxu borom bi subhanahu wa taala ana yow mi nga xamante ne nag say responsabilité da nga koo fàtte ba say njaboot bu góorgóorlu sax ba ne dafa jël bëgg a sàng yërëmam nga ne ko bu fi indi gaaf ndax lii ñii tënjee koy def inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yoo xam ne ëllëg bu fekkente ni jaamu yàlla nga daan def ba ñëpp xam la ci nga war a dem yàlla àtte la nga war a dugg biir aljana fekk sa njaboot tënkoole woon ci loolu di nga bokk ci ñi yàlla naan waqifuhum innahum mas'ulun taxawal leen kële yow yàlla sama way jurgee mënul dem ndax ba mu jëlee sama muurukaay damay muur samay cër sama yaay moo ne lii moom doo ko fi def ndax da ngay gaaf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndigalu borom bi subhanahu wa taala moom la nit ñi jël léegi di ko gaafal mbokk yi te nga mën a bàyyi sa doom nag mu sol leneen loo xamante ne nee nga lii dafa tàng mu génn nekk fitna loolu mooy crime bu njëkk bi crime bi ñuy wax mooy nga bàyyi sa njaboot mu sol yére yoo xamante ne bu génnee xale yu góor yi seen xol yi feebar di ko dut baaraam eh booy pis eh miis yow yaa njëkk a indi fitna yow mi nga xam yaay way jur bi ñu responsable ci moom nga bàyyi ko nag mu dem ba fan nga ne danga koy bàyyi mu dem plage pour sangu ji di jaxasoo diggante ay góor ak ay jigéen fan lay jàngee wala fan lay gisee la fay xew ak la mu bëgg a dem découvrir ko ci lu mu doon gis mooy ci li nga xamante ni tubaab bi jaar na fa ba taxu fa suñu pas-pas mbokk yi ñun de ba télé amul woon télé ba mu amul woon ñépp a mucc woon ci li xew ci jamonoy tey waaye fitna wala tubaab bu bon bi nga xamante ni nasaraan su bon si nga xamante ni seen objectif mooy ñoom la seytaane ngemb ngir ñu déviéloo jullit ñi seen yoon ñëw indil la ay écran indil la ñoom seeni xasaaraat jëla ko wan seen nañuy solo seen nañuy waxee seen nañuy doxee ba yow nga gis koo xamante ni demba la tudd demb ko wax xam ne kooku noonu sénégalais la wala africain la mu rombali di dox nga jàpp ni kii moom xanaa moom kii fan la juddoo fekk boobu cuub nañ ko bu yàgg tafu nañ ko li nga xamante ne mooy li gënoon rëy ci moom mooy pas-pasam jaarale ko ci écran télé muy dem di dem ba jamono léegi ñu jox la benn écran bi gën a tuuti nga koy def sa biir poche muy téléphone weesu nañ loolu léegi fépp lañ installé ay wifi créé la ay télé smartphone nga mën a jàkkaarloog moom nga ne njaboot fii ci vacances lañ nekk jox leen livre leen télé bi dem leen ba leen ñu dem leen ci télé bi ñu jël di manipuler di seetaan suñu yëf du début à la fin épisode yi naan rawoon ci année scolaire bi yëpp xale yi dabuwaat ko génn nag jaaxal nga naan kii bi lay commencé que di ko móolu di ko móolu muy li gën a bon da nga jàkkaarloo sa doom di ko móolu mbokk yi nañu xoolaat suñuy responsabilité ci njaboot gi ginnaaw bi nga xamante ne nag la ñu war ci ñoom mooy di leen ñaanal yàlla teg leen ci alhidaaya yàlla yàlla sàmmal ñu njaboot gi sàmmal ñu suñu njaboot gi teg leen ci siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك السوي اللهم اهدنا إلى صراطك السوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله